today across the country and the satellite picture indicates convective clouds over parts of Gulf of Guinea states which will cause rain and thunderstorm in the affected area and also over southern Mauritania dust haze will persist in the next 24 hours. For the forecast tonight we'll be expecting a warm and hazy atmosphere to prevail over the entire country whilst tomorrow We'll be expecting a hazy and partly cloudy conditions to prevail over the entire country, with mild conditions over the coastal areas and very warm over the inland areas. Winds will vary between westerlies and southwesterlies in orientation, which will be about 15 to 20 kilometers per hour. Morning temperatures over the west will vary between 22 and 24 degrees Celsius, whilst over the rest of the country they will vary between 26 and 27 degrees Celsius. For the afternoon temperatures, over the west it will vary between 31 and 39 degrees Celsius, whilst over the rest of the country it will vary between 37 and 40 degrees Celsius. For the low tide, we'll be expecting 0.5 meters at 8.24 a.m. and 0.4 meters at 9.22 p.m. For the high tide, we'll be expecting 1.5 meters at 2.50 a.m. and 1.7 meters at 3.09 p.m. For the wave heights, they'll vary between 1 to 2 meters high, slight to moderate southeasterly swells. The sun will rise at 6.34 and will set at 1930. Thanks for watching and do have a wonderful evening. Watch it. From the weather report, we take a quick look at our headlines before we end this edition of the news. The Minister of Health and Social Welfare, Balagaba Jahumpa, has expressed concern over the alarming rate of smoking in the country in a televised statement on the eve of World No Tobacco Day. Actors in disaster management have been meeting to map out strategies and strengthen synergies, synergies rather, on disaster risk reduction. Controversy in Senegal as the majority leader in the country's National Assembly called for the reintroduction of the death death penalty nearly a decade since its ab abolition, and the Pakistani Taliban has a new number two. This as an American drone strike kills Deputy Commander Wari ur-Rahman in Pakistan's border with Afghanistan. Well, that's all in this edition of the news. Thank you for watching. Join us at 10 for another bulletin. Meanwhile, enjoy our programs. starts with an Nescafe. Nestle, good food, good life. galgal na ko daalil na ko gaw lewaatu programme yu bëre la buñ leen di isili alxamis bu nekk si GRTS dama ne ànd leen nag lingeeri GRTS mu isil leen làmba yi nga xam ne moom ngeen soxla dina fekki naka bërekat yi si seen tàggatukaay yaram yi waaye tamit dina waxtaan ak ñi nga xam ne moo xam làmb démb Eu aprovo. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonente bu tedd bi di gërëm suñu ñaari waajur am di jàmm yi dëkkandoor yi ak képp xam ne yaa ngi saan sa programme yi lewaatu ngeen di saan ak seen doomi ndey Linguère ba si tey gi nag ki nga xam ne mooy Njaay moo gu mag gi diggante ki ne mooy tas sa yaram ak action tey nag bés bi jot na ay minutes yu néew moo si des ñaan yi war a jàppoo mbokk xam ngeen ne bési tey gii yemoo na ak li nga xam ne mooy suñu bàddee Mr President ñu koy gërëm di ko sant di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram loolu tax na ñu koy gërëm nga xam ne mooy Thierno ak Bouba nga xam ne ñoo ñu ñëwal mboobu rafet bi doo am pour ko Eh, gannaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi ñun eh, réew mi li la laaj eh, ñi nga xam ne ñoo dëkk si réew mi ñu nekk ñoo xam ne tamit ay tajoor lañ ay ñawkat wala am nañ ay ay yi nga xam ne mooy façon sob war nañoo dimbale ñi nga xam ne ñuy liggéey si aar bi ñoom it jàppale parce que every time di solu solu bu ees bu gënee nit ñi di ñu di ñu di ñu di ñu xemem di ñu bàyyi xel si télé bi soo moo tax war na lool ku nekk mu soloon ñu lu mel nii comme ku mel ni Thié mu ngi def fii Leewtoo happy birthday Mr President bés bi bési His Excellency la président yi réew Gore promotion tuddee ko bési kon bés bi wartu ndaw li ngeer bés bi wartu ndaw mu ne mbokk yi dañ programme bi Leewtoo flag bi kii nga xam ne mooy njiitu réew mi moom la ñu ko tuddee Ndiaye Gore moo tegal laaba gu mag bi bés bi tey bés la bés bu la moo tax tey ku dégg lu ma waxee nga xam na kontaan naa This is His Excellency, the President of the Republic of the Gambia, Sheikh Professor Alhaji Dr. Yahya Ejiji Jammeh moom lañ jël drapeau bu rëy bi njaay ko jël ko nu ko ko am yaa ko liggéey ba nga def si réew mi ñëpp teg nañ ci sa bët nga jël lamb bokk si promoteur yi nga xam ne ñooy promoteur yu mag yi si réew mi Linguère Alhaji Coy ñoo nekk tey si table bi pour waxtaan taan yéen a man Matar seen pour wax leen lépp lu war a si géew bi waaye tey nag GRTS mooy bëri kan mooy GRTS moom moo ñu jox moo féetoo càmmoñ jaatee sa ngi noonu moo féetoo càmmoñ jël la ñuul takk ko si doxo si tànki càmmoñ bi jëlaa lu xonq takkaat ko si tànki càmmoñ bi ndeyjoor bi jaatee féetoo ñu càmmoñ Undertaker féetoo ñu ndeyjoor mu nekk combat boo xam ne mooy premier combat ngeen ànd si kan kaw su saane nekk si digg bi ji nga ànd kan Sidi coor ànd kan Aliou Ndour ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo war a àtte combat bi. kooku may 1000 francs moom mooy njool ma yàq ko am taxaw kii te ñuul kooku may jaartees. jaartas ma yëkkati loxo noonu ma daal dafa mel ne ñaari mbëri rafli bi senn laan ba pare li olof da wax ne wura wa dem na këng waxi mag dem na ngay sàll waxal si jaatees parce que mooy borom télé bi li ko li ñoo wane ni yëpp si bëri jaatees a ko génne te am na koo xam ne jël na boppam tuddee ko jaatees jërëjëf Matar kom li nga wax noonu si jaartees loolu mun na see commune bu baax a baax a baax ndax doomu aadama boo yoon yoonu baax ñu bëri dañ laa roy waaye boo jaaree yoon boo xam ne ah jaartees ak kii nga xam ne kii mooy 1000F jaartees sol nañ solom kaw 1000 francs mooy njool mi jaarteel jox ñu gannaaw ñoom ñaar ñoom nag ngembal Lagos lañ ngemboo waaye toujours jaartees moom moo amee loo xam ne ah jaartees 1000 francs 1000 francs rëbbalu na waa jogaan na jaartees 1000 francs ñoom ñaar kenn ku nekk yaa sol sa morom 1000 am na ngemb jaartees am na ngemb benn loxo bi mu ngi ko téye si ngemb jaartees jaartees 1000 francs ñaare xale yi ñu ngi bëree waaye bëree la boo xam ne bii Linguère lu nekk mun na see kaw parce que boo xoolee jaar tees 1000 moo ko gétti waaye lu 1000 francs lar rek jaar daf ko